di ci nafarante ak yeen lenn ci atay koor kon bismillah bismillahi rahmaani rahim bisi at mi ci walu koor manam bisi yes saña wor ak yees sañca wor des na ko séddale juróom benn xaj xaj bu njëkk bi amna na bis yo xamne wor ko da war señi su ko baña wor ngant muy wéru koor xajum ñaarel bi am na bis yu harama wor señi su ko wor ci genn anam moy bisu kori ak tabaski xajuk ñettel bi amna ci bis yo xamne ne su lu ci genn anam muy ñaari fan yi top ci tabaski anam gi mën tax ñu sañ ko wor moy al haji mo xamne am haddu yi da ko war ci niral mu armalon armaluk tamatto wala khiran yoon waral ci mom am haddu yu te mom amuko kon dañu koy mu wor fukki fan fukki fan yoo xam ne ñetti fan ya ca biir aj ga la koy woore diggante fa mu armalee bisu arafa juróom ñaari fan ya des bu jugee munaa ñetti fan yooyu mu waroon a woor ca biir aj ga nag bu ko wóorul kon dañu koy sant mu woor ko ci fani minan yi te mooy ñetti fan yu topp ci tabaski ñeenteelu xaaj bi am na ca bis bu ñu sib ku ko woor mooy ñeenteelu fan ñeenteelu fanu tabaski maanaam bis bi mujj ci bisi minan yi ñaari fan yoo ko jiitu moom woor ko daa ndax ci tabaski la ñu bokk anam gi ñu tuddoon léegi rek mooy tax ñu sañ koo woor bu dee ñeenteelu fan ba mook bokkul ci tabaski moom woor ko dañu ko sib rek juróomeelu xaaj bi am na ci bis yu ñu taamu ku ko woor lool mooy bis yi nga xam ne soññee aku xemmem loo daa root ñeel ku ko woor niki al ayyaamul faadila juróom-benneelu xaaj bi nag am na ci bis yu dagana woor mooy lu weesu bis yooyu nu tudd léegi ci juróomi xaaj yu njëkk yi dagan gi ñu wax léegi nag firiwul loo xam ne def ga ak bàyyi nga ñooyam déedéet ak jaamu moom tolluwaay bi ci gën a suufe mooy doon lu ñu sopp